aousubillahi min asheytaani irajim bisimillahi rahmaanirahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah ah, bu ngeen gisee mbooloo mu takk mi nga xamante ne moo nekk ci suñ ginnaaw nekk ci suñ kanam di bawo ko fenn fu nekk ci mbooleem gox yi dëkk bi di nga xamante ne mooy njaareem di dëkkub Serigne Touba nga xamante ne fi sëriñ bi doon waxe raamu masiri ila jurben lala latasin law aayenu shirra ma fi shayri ma raamu li ko waral moo waajal màggal Touba gi nga xamante ne moo tolloo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar loolu nag euh, waa dëkk bi dañoo baaxoo woo ci at yi ñu passé saabu weeru weer ñu def benn mars benn dox boo xamante ne doxum mbégte la ngir feeñal seen mbégte ci ki nga xamante ne mooy Serigne Touba Cheikhul Khadim ngir waajale ko itam li nga xamante ne mooy bisu fukkeelu fan bi ak juróom-ñett ci weeru safar bu ko defee ñu soññaat taalibe yi soññaat mbooloo mi xamal leen ne màggal gi jub si na màggalu Serigne Touba gi jub si kenn ku ci nekk nga mën koo waajal bu baax a baax waajal ko ci sa xol waajal ko sa xel waajal ko ci alal waajal ko sa jëmm waajal ko ci anam goo xamante ne bii noonu la ko Serigne Touba Cheikhul Khadim bëggee loolu moo waral tey taalibe yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk amatoo benn soxla lu dul génn rek feeñal sa yéene feeñal sa dox feeñal sa mbégte ci bis bi nga xamante ne mooy bisu fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru safar muy bis boo xamante ne moo ñu tàqale ak bu mu jaam muy bis boo nga xamante ne ëllëg yowmal xiyaam mooy moom la ñu yaakaar mooy bis bi nga xamante ne bii daal mooy bisub Sëriñ Tuubaa di bisub sanc kon euh, loolu moo waral mbooloo mi ànd di dox ngir feeñal seen yéen mbokk yi euh, kii ñu taxawal mooy Serigne Cheikh Fall euh, di jëmm joo xamante ne euh, mën nañ ne bis bii nga xamante ne tey ci la murid yëpp génn ci la waa Njaareem ñëpp génn ci la julin ñëpp génn région Diourbel ñëpp a ngi fi yàlla ak barkeem ci suñ borom ci moom mi la ko jaarale nekk koo xamante ne mooy dox di wax ba coordonné ba lii am kon jëmmam ji li muy tuuti tuuti liggéeyal na yoon wi liggéey boo xamante ne murid yëpp ñoo ko amal njëkkal kon du ñu def lu dul bàyyi leen ak Serigne Cheikh mu sànni ci ay kàddu. jërëjëf sëñ Abdou Lahad ñi ngi sant rek lii lépp lii rek lañ ci jublu woon ñëpp xam ni sëñ Touba kenn mënu koo fay lii rek lañ ko mën a defal mooy génn delloo ko njukkal sant ko gërëm ko teerule ko bisam bu màgg bii di weeru màggal di 18 safar ñuy sant ñëpp nag waaw ndax yëfi sëñ Touba la ñëpp ko moom ñëpp ko bokk ñi ngi leen sant yéen bu baax a baax a baax foofu daal la wàcce wàcce kàddu xam ne bég nañ loolu nag wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf sëñ Ba jërëjëf kon de ngeen noonu ko coordinateur bi waxee ba tey ñu ngi taxaw ak suñu mbokk taalibe waaw ma ne suñu Abdou Ahad ñu ngi lay sant di la gërëm di sant Cheikhul Khadim Khadim Moustapha nga xam ne lépp mooma ndaxte dafa wax lu doy lii dafa war dafa war dox doxum tey jii daa war lépp loo xam ne mindaaf kon nga yaa xam nu la yàlla bindee nga jël sa jëmm mu rafaate ko mu jëm doomu aadama nga ànd ak doomu aadama ci biir ci biir ci kaw bës bi ndax dafa ne xalama nii rahmaanu maa maa kaana xablal xar yi sëñ Tuubaa doon lu waxaat ne ajaaba nii rahmaanu xablal xalxi sab xiina alfasan bil xaqi muy lu doy waar sëñ Tuubaa wax ne kafaaniyal baayax yi mama tasar mada bi ba xaayee na bi sabra mada Cheikhul Xadim lu wax bëri na te nañ sant sëñ Tuubaa nañ doole sant sëñ Tuubaa man sama lépp sëñ Tuubaa la te dinaa la xamal de adduna bi tey ñëpp buñ toogoon ne jërëjëfati Cheikhul Khadim sama borom tukki la adduna jégal jaam yi yóbbu la de delloo la àjjana barke Ahmadul Khadim man lii man maa ko waat ci bésum sëñ tubaab yi. jërëjëf jërëjëf kon nañu sant sëñ tubaab baax baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jëf yi ciikumulaa xeer jërëjëf jërëjëf lu mës a am ci aduna lu mës si am ci bés bi tey daa am nga xam ne maire bi ku njëkk def ci Amérique mooy boccali bi suñ maire bi naka suñ tuwaa takkal ndam ki tax duñ ko tekkeeti monsieur le maire tey li def daa rii ci ñun wallaahi asim li def daa rii ci ñun loo gisee marché bi ak loo gisee gone yi ak loo gisee waa Njaaréem euh, sant sëñ Touba rek jërëjëf sëñ Touba alhamdulilah ndax lii ku ko gis rek xam ne war nañu delluwaat sant sëñ Touba rek xam ne lépp moo ñu ko defal mm, mm. donc kon waa Njaaréem bu ñu génnee jeunes yi génn ñëpp génn mm. pour ñu sant sëñ Touba vraiment kontaan ak mbégte la moo tax tey ma ne naa ñëw tey vraiment bokk ci marché bi ñëpp ñu bokkandoo sant sëñ Touba. di kontaan di sant waa Njaarim ak jeunes yi ak xale yi ak mag ñëpp ñi nga xam ne tey jii vraiment jàpp nañ ci euh, caravane bi ba tey gis nga ko réussite bu mu am lépp daal delluwaat daal di sant sëñ Touba rek xam lépp sant sëñ Touba rek la. waaw lépp moom la sëñ bi rek la du kenn moom rek la. alhamdulilah kon sant na Serigne lii lu lii lu yàlla defal sant sëñ Tuubaa bu wér koo def gis nga maire bi tey ab xolam doo ko xaroon sëñ Tuubaa la kon monsieur le maire ñun njaarim gépp ñu ngi maase ci kat kii sëñ Tuubaa doo bëggee présidentiel yàlla ko lel ko jox wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu ñu ngi ñu ngi jot jot sëriñ Abdou Doot Ndiaye murid saadix bàyyam toppoon sëñ Afe Mbàkke sëñ Xudóot loo gis ci bis bi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit mbokki taalibe ñun ñëpp ñoo ngi leen di siyaare di leen balaax di am di mu baax nag lu yaatu ci bis bii ndax bis bi suñu bis la nun de li ñuy wax mooy bu Serigne Touba ñëwutoon njaareem ñun du duñu am kon ndax ñëw Serigne Touba njaareem moo waral suñuy maam gàddaay fa fa nekkoon di bay ñëw fi am fi ay soxna bu am fi suñuy bàyyi ba ñu juddoo fi kon nag alhamdulilah waaye nag marché bi Serigne Touba ko njëkk def ndax raamu masiri ila la lala lasta si law ayoonu sira ma fi siri ma raamu asayru mawtu ala man naas wa asan wa innahu lee ibqaa wa ikraamu ñaari bayit la suñ borom moo ko xamal ne ko sa sa kat ñu ngi lay bëgg yóbbu njaarem te njaarem googu fa nga njëkk a mose sa liggéey foofee nga ko njëkk a mose ba ñu àdduna tukki dootu jeexate ba faw kon ñoom tubaab bi buñ sàkkoo suñ tubaab dem njaarem to ñoom ñoo ko sàkku loolu naxu la lu fii lu mu daane fii lu amal du fii fii mu daane mooy lu ñëw ba pare suñu tubaab doog koo bind kon ra moo sàkku nañ la wax kon moo sàkku tubaab yi suñu borom moo ko xamal ne ko nag tubaab yi ñoo sàkku ñëw njaalem kon njaalem googu ñun bu suñu tubaab kon dara du sotti ñëw gi mu fi ñun ñun ñi la arrangé ndax moom dafa dafa dox ñëw ndax jamono yooyu bu oto amee it yaatuwul yaatu mën nañ am ak Sénégal te kon doo yorutoon oto dugutoon avion dafa jël aw fas war moo ñi mu àndaloon ñuy dox jëm jaareem ndax am na dëkk yu bari yu mu jaar moo war a xam ne kon ndox bi suñu ko njëkkee hmm. kon nag nañ dox ànd ak moom ci lépp suñu njëriñu àdduna ak suñu alaxira ci dox bi la nekk ñun njaareem fu ñu ñëwee fii màggal bu buñ ko amee suñ Tuubaa tax te ndox bi moo tax màggal Touba. Mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. tey ñu ngi jàkkaarloo ko Cheikh Ibrahima Fall gii nga xam ne fii la daan génne di wut ci sëñ Bamba lépp ci ndigal yi ak noo gisee yow mi nga xam ne yaa dëkk bii buntu kër Cheikh Ibrahima Fall ngi nuy jàkkaarloo loo gisee marché bi ak loo gisee biñ tollee fii. <laughs> waa jërëjëf euh, Serigne Gànnaar gis defuñu lu dul bég mm. ndaxte tey ñoo ngi jàkkaarloo ak kër gi nga xamante ne mm. mooy kër maam Cheikh Ibrahima Fall mm. nga xamante ne dundam gi yëpp fii la ko def daan génn fii di wuy ji sangam bu tedd ba mm. Seyxul Xadim mm. fële ca Madinatul war mm. nga xamante ne liggéey na fi liggéey bu am solo liggéey boo xamante ne ah, kenn nattable ko loolu itam bi yàlla dogalee mu jóge fi doomam ja di taawam ba Cheikh Mouhamadou Moustapha taxawe taxawaay boobu ànd ak njabootuk Serigne Touba yi liggéey fi liggéey bu am solo ba tey jii ñuy wax ak yow Serigne Cheikh Ndigal di Serigne Cheikh Roqiya moom mooy ki nga xamante ne moo toog toogaa yi Serigne Mouhamadou Moustapha Fall boobu kon nag na yàlla guddal aw fanam wéral ay cëram di kenn ci njabootu sëñ Modou fa doomi sëriñ Cheikh Fall Baye bu Góor toogee bu toogee toogaayu Cheikh Baye bu Góor kon liggéey boobu ba nga xamante ne moom la maamam ja ak baayam ya daan wéyal loolee moom la Serigne Cheikh ya tooge tey muy liggéey boo xamante ne bu am solo la noonu it la ànd ak mbooleem njabootu Cheikh Ibra gi xam ne ñoo nekk ci quartier bi ak mbooleem taalibee Cheikh Ibra yi kon gànnaar daal ñun def lu lu dul sant. waaw sant sant nañu yàlla ñu ngi jàkkaarloo bu ñu ko sëñ Thiala Fall mu suñ mudu menda sëñ Thiala Fall topp na sëñ Cheikh topp àndoon na ak sëñ Cheikh ñu ngi jàkkaaroog suñ Kassim Kassim Mor Talla Fall fii nga xam ne fi lañ taxaw benn baat rek fi am si am di muudu mel ne mooy yilif ñi fi nekk ñëpp ñu ko ñaanal bu yàgg fi téwér kon sur xool seet nañ ci waa kër Cheikh ànd nañ ak waa kër gu mag ngir waajal bis xam na ñun ñëpp ñoo ko bokk ngir màggalal Serigne santa santam yi nga xam na moom lay wote fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wasalaamaaleykum wa rahmatullah muudu mel ne di sama baay Cheikh Ibra Fall sëñ nu it amuñu lu dul sëñ Touba bëgguñu lu dul sëñ Touba xooluñu it leen lu dul sëñ Touba lu sëñ Touba amul rek soxlawuñu ko lu sëñ Touba am rek la ñu bëgg moo a tax ak yéen toog fii di siyaare sëñ Touba di jëmmal maam Cheikh Ibra Fall mi sa maam ci daraja Rasulullaay yal na ko yàlla def na déwén te fekk lépp te tal ko yéen ñi koy doxet yal na la sa borom ya may gudd fan gu ànd ak wér ak wërsëg sëñ Touba nag moom tànk kanam la am amul tànk gannaaw noo ngi ci moom nag faaw lu mu am rek la nu bëgg soxlawuñu dara seetuñu dara bëgguñu dara lu dul sëñ Touba sëñ Touba rek la nu bëgg waaw xeertu tubaarkàlla xeertu waaw. kooku mooy suñu bàjjen Soxna Fall di kenn ci njabootu Serigne Modou Mbenda di njabootu Cheikh Ibra kon dégg ngeen kàddu yooyu nga xam ne moom la fi sànni ñoom itam ñu ngi koy ñaanal ne na yàlla guddal fanam beral cëram bi jaay Seyxul Xadim barki maam Cheikh Ibrahima Fall. ci suñu kanam bàjjan soxna Fall Jëgg moom Serigne Saliou Fall moom maam Cheikh Ibra moom Cheikhul Khadim rakki maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina moom sëriñ Touba Cheikhul Khadim kon duñu def lu dul bàyyee kàddu gi ak suñu bàjjen soxna Fall Jëgg mu sànni ci ay kàddu bismillahi mina seytaan rajim barke Borom Touba barke Borom Touba barke Borom Touba barke Cheikh Rafal barke Cheikh Rafal yàlla nañ ko teew ay déwén yàlla nañ ko defi déwén lii nag jar na ko. jaar na ko ba muy dem ba muy dem ba mu dikkee bu noon sunu bakkan du fi des sunu bakkan du fi des jaar na ko kon nag yéen ñu koy def yàlla na ngeen gudd fan yàlla na ko teewee amiin Fall jërëjëf jërëjëf Fall jërëjëf jërëjëf bu sedd la bàkki Sëriñ Tuubaa ku waxul jërëjëf Sëriñ Tuubaa ku nekk ak ni ko yëgee xoolal waa kër Cheikh Ibrahima asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di siyaar di leen jégalu bu baax a baax di fas yéene lii ñu saxal yàlla nañu suñ bàmba saxal bañ gën koo man di ko def suñ Tuuba kattanu Cheikh Ibrahima fas yéene liggéeyal suñ bopp nag moo am liggéeyal suñ Tuuba moom wax ji dandu la nañ jéem a jëriñu ci liggéeyu suñ Tuuba bi dañoo fas yéene jëriñu ci liggéeyu suñ Tuuba bi jërëjëf Touba Monde TV tey ñu ngi toog ci kanam Serigne fallu Mbacké moom Serigne Abdoul Baqi moom Maam Xaas moom Serigne Afia Mbacké di rakki Serigne Touba Sayxul Xadim kon Serigne Fallou fii ñu la fekk tey fi lañ daan fekk sa waajuroo Serigne Abdoul Baqi mu sànni ci ay kàddu ñaaxaan mbooloo mi soññaat leen ci wàccaay bi nga xamante ne moo nekk seen kanam yàlla dogal na tey nag bi ñu ñëwee tasanteek euh, mu tukki mm-hmm. kon yow lañ fi fekk ñu bëgg kaddu yooyu nga xamante ne mm-hmm. moom la suñu waajur wa di suñu sëriñ sëriñ Abdou Baaxi daan sànni taalibe yi mm-hmm. nga sànni ci ay kàddu rek bismillah aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain radiya an imamina wa maladina cheikh ahmad alxadim alqaili sababu gaybati ya anna allaha arada an anala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mboolem mbokk yi ñuy déglu te dañu seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen ziare bu baax ci munaasaba maanaam xew-xew bu màgg bii nga xam ne tey yàlla defate ñu fekke ko te muy xéewal gu màgg màgg ni ko sëriñ bi waxee xéewal la goo xam ne nii mboolem julit boo xam ne nii sax ngay nopp rek jariñ nga ca bis bi moo xam nga bokk ci murid yi xam ko mbaa bokk ci murid yi xamoo ko waaye lépp lu jariñ jëriñu sëriñ ci yonent bi sallallahu alayhi rek ci bisu sëriñ ko jëriñoo kon nag ñi nga xam ne ñoo taxaw lii ngir bëgg a fësal gën a couleur gën a rafetal xew-xew bu màgg bii am def nañ mbir mu am solo te yéen te yàlla moo wax ci alxuraan ne wa man azim xurumatillahi fa wa xayrun la lu yàlla war maal nga di ko war mal aw yiw la ñeel la kon nag ñun ñi nga xam ne nii yàlla def na ci ñun suñu xel ñu fas yéenee topp màggal gi di ko taxawee ci bët bu nekk ci safar defe naa loolu taxawaay bu am am solo la li nga xam ne moo war nag ñun murid yëpp moo ñu gën a takku bu baax a baax gën a jëbal suñu bopp Sëriñ Tuubaa rek yow taala anu ndaxte moom njëriñ la loo xam ne nii ah yàlla moo ñu ko baaxee yàlla muñ ko baaxee ba nga xamee ne kenn ku nekk ci ñun soo ci góorgóorloo sa àddina ak sa laaxira mën naa defaru bu baax baax ndaxte def naa ne lépp loo xam ne ne baax na ci lislaam wala mu rafet mbaa mu taaru mbaa ñu di ko soxla rek jël na ko bu dee lu sore jegal na ko bu dee loo xam ne dafa dëgër noyal na ko bu dee lu wow tooyal na ko bu lépp loo xam ne jafe-jafe am na ci rek fexe na ba loolu dañ jëbal ñu ko loolu nag bëgg ñu jëriñu àddina ak laaxira moo kon nag maa ngi soñ soñ sama boobu di soñ ñëpp bis mu weer wi ne ñu ci dugg na bépp murit fas lépp loo bëgg nga ko ci ndaxte innamal a'maalu binniyaat te itam niyatul mu'mini xayru min amalihi yonent bi saa ma ko wax yëngu bi baax na lool waaye nañu bu ñuy fàtte yéene ndax julli li muy for for ak bu fekkoon da julli tey te yéene woo da mel ni koy def sport rek waaye du am dara boo wooroon ba ngoon jot tey yéene woo da mel ni koy def grève de la faim kon nañ fa buñ xel bu baax a baax bépp yëngu buñ yëngu ci yàlla di ko jaare sëriñ bi buñ ci fàtte yéene lu waaye yéene a baax Mm-hmm. jërëjëf Serigne Fallou euh, kon dégg ngeen kàddu yooyu nga xam ne moo tukkee ci Serigne Fallou moom Serigne Abdou Bakhin moom maam xaas moom Serigne Afia di rakki Serigne Touba kon Serigne bi ñu nit ñu ngi ñaan yàlla guddal sa fan wéral sa cër mboolem njaboot gi suñu borom bàyyi leen fi ba taxawaay bi nga xamante ne moom la waajur ya taxe woon ngeen mën ko taxawee wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nga nit ñi ni yëgee sëñ Touba ak ñu koy marché xoolal duruskat yëpp ngi nii taxaw nga xam ne sëñ Touba rek lañ ñor xoolal fan commencé ca jumaa ja lañ commencé ak sëñ Touba gi di di di durus ngir kenn sëñ Touba te xoolal ni ñu koy defee mooy bu mu xadimaat jës bu sindi di wa kanaaxan lu ne murid yor na ko tey ngir sant Serigne Touba ngir bésam bii gis nga ni koy gars yi dundale nii rek la te màggalu Touba boobu nii màggal gi jeexee nii lañ koy defee ku nekk ak ni nga yëgee ci Serigne Touba ku nekk ak na ngay doxee ci Serigne Touba ñoom ñi nii rek la ñuy doxee ci Serigne Touba te ko wàcc mukk kon ñun ñaanal murid yi ñaanal Serigne Sidi Muxtaar xalifa di awali mu yàgg fi téwéer ci dara ci Serigne Mbacké Soxolo kon Mourou noonu la koy nit ñi màggale murid yi ngi nii ci tudd Serigne Touba ci xol ñenn ñaa ngi yor di jàng ci xol Serigne Touba rek fi ne moom rek la ñu nga ku nekk ni ngay sant Serigne Touba xol bu sedd la. Xaadim nga gis nga murid yi ku nekk ak ni ngay sante Serigne bi ñun ñëpp kilifa yëpp ñu fi ñu bàyyi kilifa gi wax sëriñ bi noo gisee yëpp. jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf ñu sant yàlla bu baax ñu bëri sëriñ Touba. jërëjëf Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul mënoo yéen a kii la yéen a. jërëjëf Cheikh Amadou Bamba. ñu ko tàggal ñu boppam. yëngu ci boppam ba wutu ci dara dul bi néewuñ ci dara dul sëriñ bi bëgg dara dul sëriñ bi tey mu génnoon de xaratu yow ma sabti samina asar dafa bëtte mu taarif fi safar ko njaarim jóg di feeñal seen bëtte di feeñal seen sant ci sëriñ Tuubaa cant limu te nekk sant la yàlla lott nañ ci suñu doole lott na ci na ci suñu baax di wax ñu ngi sant sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax tey bu tudd sëriñ man saxatu du genre ngeen tudd Paul kenn tudd deneen mooy wax seen bisaaka jëm waxoon ne budul woon dem gi mu dem ci géej gi kon wolof kon ñëpp dem budul woon dem gi mu dem ci géej gi ak nasaraan yi kon billaahi ñëpp dem nii raanu sëñ Tuubaa ngi tey dem sawara moo ñu ràmb moo ñu moom suñu borom te ñoon kat Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa moo ñu moom keneen moomuñu yàlla yàlla lu ñuy def di defal yàlla sëñ Tuubaa lañ koy def jërëjëf yàlla moo xam jërëjëf yàlla lu ñu ko def na ko def waaye ñun lu ñu def sëñ Tuubaa ko moom jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñu xol sedd na am na am nañ des ci lii da nga koy jël. Serigne Touba rek fi ne xoolee oto bii kër gu mag la déparé ay xéwal rek la saf murid yi def ko ngir jox kon kon ñun sant nañ bu baax a baax a baax Serigne Touba nga xam ne Serigne Touba rek a fi ne ay xéwal la ci ne ku romb jox la ndox mu sedd jox la beñe jox la kafe ngir. premier safar gi ngir waajal bisu sëñ Tuubaa bi nga xam ne amul lu moom sëñ Tuubaa tam nee na bisam bii la fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar rek la am de sant ko yàlla waaw kon xoolee jigéen ñi jigéen ñi ba góor ñi départ leen départ ñoom kenn mënu leen ngir sant seen Tuubaa kon ñu ngi sant Serigne Touba bu wér a wér lu lay Serigne Touba am na ko lu lay Serigne Touba am na ko kii rek mën naa régler circulation ngir Serigne Touba rek lu lay Serigne Touba am na ko sëñ Samba noo gisee wax ji ak jëf ji ak liggéey bi wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu bu baax a ndax lii kawe na suñu njort lool ndax Serigne Touba rek moom bis bu lii nag képp koo xamante yéemoo dara dootu la yéem si àdduna lii nag taalibe yi nag gis nga ko jigéen ña góor ñi mobilisé wu nañ nekk si kon nag ñu ngi bu baax a baax fi teew dox dox suñu xool seen rek jigéen ay jigéen ñi rek ñoo ne ngir kenn leen suñu juwaa ak bëgg sëriñ bi suñu xool seet nit ñëpp waaw kenn leen njëkk ji leen dégg leen koy ni ñu koy sante am na ñu jàll am na ñu ci ginnaaw ak ni ñu koy yëgee nga xam ne Serigne Touba rek a fi ne kon leen gërëm Serigne Touba bu wér a ak ko yëgee ñii ñi ngi dukkat ñii ngi daw ñii waaw ku nekk ak ni ko yëgee ku nekk ak ni ko yëgee Sarr lañ jógee kër sëñ Mbaye Sarr kër sëñ Mbaye Sarr kër sëñ Mbaye Sarr lañ jógee. su loolu man jaaxle naa xoolee man ci fii si ñu xam ne sëñ Tuubaa rek a fi ne si billahi sant nañ bu baax xoolee jigéen ñi ban demee ba tey gone yi ndaw yi jigéen ñi ñii daal sëriñ Tuubaa rek am fay te yàlla fay. ku fi dëgg. maama amare kay dëgg. fii ku fi maama amare kay dëgg. fii ku fi maama amare kay dëgg. fii ku fi maama amare kay dëgg. fii ku fi dëgg. maama ab taxawaayam xoolal murid yi nga xam ne ñoom tim danoo taxaw rek. ngir yor ay bagage ak ak i xandi ak i xandi ndox sëñ Bakay Mouride Sadiq ngi nii nga xam ne suñu tuwaa rek la murid bi xool la rek mu du xool murid bi nekk suñu tuwaa rek nga xam ñor sëñ tuwaa rek leen sab xol waa jëriñ bisimilah ñoo ngi lay siyaare ñi nga xam ne lii seen doole rek ngeen ko defee te suñ cuwaa rek tax nga xam ne moom lay waaj mu fukki fan ak juróom-ñett waxoon sëñ Balla Fari Jeng ne ko lépp lu ngeen am ni ngeen ma ko defal yéen murid bi ngeen ko xamee seen maam daan ko def ak seen i baay ngeen ñëw seen maam mënul leen seen baay mënul leen ana lu ngeen taxee bis bi ak lu ngeen waaje ba bis bi taxaw waaw waaw gànnaaw noonu ko waxee noonu la amee maanaam li nga xamante ne Sëñ Tuubaa noonu rek lañ ko liggéey lañ lañ ndax ndax euh, bis bi bañ ci amee ndigal ba pare ñu ngi koy waajee ci mbépp waajaan ndax Sëñ Tuubaa daa santaane ci màggal gi ñu jàng xasida ak jàng alxuraan ak xasida at bernde du moins bernde ñu ne ci wàllu bernde mi ñu ne kon nañ jëlee wàllu collation bi yor ko buñ defaree ay jus yu sedd ah, defar ko ci defarin bu mucc ayib jël ko di ko jox mbokki taalibe yi di ko rombee ngir wane ne bisub Sëriñ Tuubaa bi ñëw moom mi nga xamante ne moo ñu moom moo tekk buumu jàmm ci ñun moo may indépendance looloo waral loolu ñu def lii nga xamante ne collation bii nii nga xamante ne ñii am gan yu jógee Tivaouane am nañ fi ay gan yu jógee Dakar am nañ fi ay gan yu jógee Bambey waa université Bambey daanaka sax suukar ñu ko defaree ñoom ñoo ko fi indi loolee ñu jël ko ba koy ñoom di ko liggéey léegi nag man de sama yaram dafa daw ci marché bi mm-hmm. nii sama yaram dawee mm-hmm. mooy dama fee gis monsieur le maire Malick Fall. Malick Fall nga xam ne teraanga ju ne andi na ko fi. nga xam ne ba koroog bi si mutulaa demee Amérique. Mm. maire bee ko teeru. si mutulaa takkal ko ndoom ak tànk ba tey tëggee kuur tey noo gisee maire boobu ak maire yi fi jaaroon. waaw ñu ngi koy sant bu baax moom Malick Fall taxawaayam wute na at loolu yeneen mi maire yi nga xamante ne jaar na fi. Mm. bañ demee xelal nañu ci xel. Mm. jàppale nañu ci doole jàppale nañu ci pas-pas ak ci lépp lu nga xamante am na ko daa déployé ay moyens jël ay ñu lii sama alal la maa ko jox jël carburant am jox ñu ne lii sama alal la maa ko jox jël xaalisam jox ñu ne lii sama alal la maa ko jox loolee oto bii sax ñu teg bi di ko dawal ni oto monsieur le ñu mm. ne loolu du ko def yëkkati otoom jox ñu kon loolu ñu ngi ko kay ciy sant baax a baax di ci liggéeyam di ci soññi tamit yeneen autorités yi nekk ci dëkk bi mm. ñu xam ne liggéey suñ tubaab mm. njaareem da cee da cee ñoo xamante ni lii mo mbooloo mu toll nii nga mobiliser leen waroon nañu am sécurité bu ëpp bi sapeur yi baax na trop mais moo nañu am dispositif bu ëpp bi police am na fi mais war nañu am dispositif bu ëpp bi ndax loolu yi nii tamit war na ko mu sóoraale kon loolu daal ñu ci soññ préfet di ci soññ kii bi te préfet ñu ngi koy soññ ne ko ndax préfet bi njëkk bi fi nekkoon waxoon nañu lii da koy def autorité administrative nga xamante ne day nekk bis boo xamante ne bisum njaareem lay nekk moo xamante ni bis bu ñëwetee njaareem moo koy moomal boppam muy am budget boppam comme budget bi ni mu koy dégagé ci activité régionales yi loolu lañ waxoon mairie bi ah préfet loolu lañ waxoon loolu ñu koy soññ préfet bi fi nekk ne ko activité bii mu defee ñu ko activité régionale ndax préfet bi njëkk bi loolu la ñu bu ko defee bu bis ñëwetee mu mën a am subvention boppam mën am yëfi boppam ba mën a kenn ku ne mën cee gis sa bopp bu baax a baax loolu daal ñu ko ñaaxee autorité yi nga xamante ne nekk Malick Fall na ñu koy sant bu baax baax di ko gërëm mu liggéey pour Sëñ Tuubaa yàlla ko Sëñ Tuubaa bi ak noo gisee nit ñi ak taxawaay baa nga matal bëgg a dem baa nga dim yëngal Coumba lii sabar gi mooy tàmbali tey mais ku xam njaaram xam ne amul lii ci ay nit jinne yi malaaka yi ñëpp a ngi ci biir bu soobee yàlla jërëjëf Serigne Touba xam ne Serigne Touba amul moroom moom rek la jërëjëf borom Touba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 بالبدام وبأبي هريرة وببلال وبزهيب رب جلي بالنوال وتادر بل وزني من دائي زرا وجهرا بأبي دردائي بهرمة المقداد ثم خالدي وبصبيري أورني مغاسدي وبأمير المؤمنين هم مرائي حني مكرا وزغا وخررا بحق زايد المجاهدين هل الذي آن بنا بحق زاد وبحق عروة زني تمسكا بظاهر بحرمة رحمة الله تعالى وبركاته أحمده على خروج من درر وكل سين وعناء وخرر الحمد لله كريم سلمنني ala istixaali bi furudin wa sunani alhamdulillahi la si yu salli ala nabil muntaqal musalli sëñ Mor ni ngi nuyu ñëpp te ziyaari ñëpp waaye ñu ñaanal bu baax sëriñ Sidil Muxtaar mi fi nekkal xaadimul Moustapha yal na fi yàgg te wér waaye di ñaan bu baax sëriñ Cheikh Jëmbu Fall mii nga xayante ne moo toog toogay maam Cheikh ma Fall mat ko sëkk yal na fi yàgg te wér waaye ñuy dagaan ci mboolem jullit ci mboolem murit yi sun jàmbaar ji nga xam ne amuñu kenn ku dul moom muy Cheikh Amadou Mountakha ibnu Cheikh Amadou Basir yàlla fi yàgg tuwér kenn mos tamit lu ko sax jëmma ngi jooju ngoo xamante ne ku baax ku sel ku tabe ku yaatu ku lewet ku muñ ku gëm Seexul Xadim murit sadixa ngoog sëñ bi noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp ci dox ji nga xamante ne tey jii waa njaarim ñëpp ñoo ko dox ngir lan di fàttaliku bés ba nga xamante ne sunu jàmbaar ja sunu jàmbaar ja sunu yaakaar ja àddina ak alaxira moo waxoon ne yàllaa ma dimbali man Ahmadou kenn dimbali wu ma yàllaa ma man Ahmadou kenn dimbali wu ma ndimbale nga xam ne moo ko dimbale moo waral li am walaahu yansuru nii wal xalqu tatbaawu nii fil bari wal baari saa nafi bilaa dararin loolee moo waral li yàllaa waaye ndimbal ma sunu borom moo tax mbooleem mbindeef yëpp topp nanu ma ñu ne ko Amadou ñi la topp ñan la mu ne ñu ci biir géej gi ñi ci biir jëri ji ñi ci kaw jëri ji maay seenub sëriñ ñu ne ko Amadou lu tax mu ne ko damay borom njëriñ loo ne aw ma lor waaye li tax mu am loolu Amadou Bamba moo wax lii ci loo xamante ne kenn musu koo dégg loolee mooy lan sëñ Bamba daa jàkkaarloog yàlla ne ko lii doomi aadama yi njëkkante bàyyi naa ko ñoom jëm si ci yow mu dem ci yàlla yàlla ubbil ko ni ko loo soxla mu ne ko njëriñal addina ak jox ma ko man Ahmadou mu ne ko jox naa ko mu ne ko feggal maloru addina ak mu ne ko feggal naa ko jaawastu naasa wa maa fi aydi naas ila rabbi naas wala maa wasaltu aataani yàlla u naqu naas wa kafaani dura naas jëmm joo mooy jëmm ji nga xamante ne moo waral bésub tey jii ñëpp daje ci penc mi fan la ñu daje nag lu a muy buqaatul mubaaraka pàkk bu barkeel bii fi lan ndaje siwul xadim bi mu nammee defar at nag alaxira ci mbaaxam ak lewetam ci la ñëwee njaareem lépp ndax keroog ma nu ceen jolof di ko andi ñoom la nu foogoon ak li am ak a waroo jii ker la siwul xadim samp xalimam aras jaayu kursi jaayu malaka sabal sëñ mor nee la bàyyi Cheikh Amadou Basir moo njëkk a wax la ci daaru dunya isa ka tabtu i tasaasul baaqi wa sabul malako ci baaqi kenn musta lu mel noonu bésub keroog la siwul xadim bàyyee ko ceen jolof jëm si njaarim ñu ne ko ñoom lan bëggan ak lanu xalaatoon ak li am daa waroo ker la siwul xadim samp xalimam wax lii ma wax raamuma siiri ila jurbel la daal la sasin لو عينوا سر ما في الشير ما راموا فالزير موت على من نازوا وأذن وإنه لإبقان وإكرام سيñ Mor Ahmadou Bamba daa jóg ñu ne ko foo jëm ñu ko Bawol Njaareem Jurbel waaye nag raamu sàkku nanu masiiri sama dox ilaa Jurbel jëm Jurbel la daal la sa sin atuk junni ak ñett téeméer ak fanweer si rama fi seyri ma raamu bu nu xamoon mbóot mi wala sekkara si ne dox gii dox jëm Jurbel duñ ko sàkku fa seyru mutun ala man nasu wa azan ñi ma jële fële di maani fii daan fa des gàcce ak torop tànge waaye wa innahu la yëpp xaan wa ikraamu yo dem gii may dem jaarem moo may may ma des fa sax fa ak barke boo xamante ne dootul jeex bay la yawmi diin waaye suul xadim kera bim ñeg see fii daa toog gii sampat xalimam mu waroog la mu waxoon maa yomba waaye nee na maanaam ñaari bayantuhu yu maanaam bii ni muy neexe ak bal na muy naqare xammewu ma koon kere ba mu nekkee ca géej ga dafa ne bayaatu fil bëri tata sajara wal bëru musbidun waaw fajara bayaatu maa ngi janteeg moom yàlla subhaanahu wa taala fil bëri ci géej gi tata sajara ci ronu garab gi wal bëru musbidun waaye gis gaa ngi duusu waaw lii fajara waaye ma war ay kàccor lan waaye bi mu ñëpp seen njaareem ba toog ci la waxoon ne bayaatu fil tata sajara wal baru tayyibun waaw li barara jant na sa borom ci ronu xay ci ronu xay gii muy garab gii ci biir kër sëriñ bi waaye waaw li barara moo leen ñor ñëpp ñu baax lan Seexul Xadim toog juróom-ñeenti ati njaareem yàlla wax moom mu wuyu ko mu ne ko Amadou mu wuyu mu ne ko lamp bi nga xamante ne moo yor lislaam lamp bi nga xamante ne mooy taal taali jàngo yi yaa ko yor boo taalee lépp di takk boo bàyyee lépp di fay la waqita bi ya amatal sasin la daa buqaati ya alati tunir baada fii la ko siul xadim waxe maa ngi waxante gala sama borom ci pàggu barkeel bii ci juróom-ñeenti ati njaarim waaye nag fu ab leer nekk fu ab sëriñ ne fu dara ne fu fu dara ne fu lu baax fu lu mu ne fii la ko jëlee ci njaarim looloo tax nag Lamaan ak waa njaarim daal di génn di fedd seen ak sa njaante ci Xaadimu Mustafa ci suñu sa Sëriñ Mor Taam waaye ñu ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp waaye dama ne arrêté ngeen siiwul keran arrêté ngeen Sëriñ Bamba keran فتحنا عليه سوى الخديم رانا قرنا يا على البري يا على البري وجول البري باري سقاي ابن ما قوله ابن جيرجة نغير ما قوله وما تخله من سين تبا لاي دون سين تبا دك كر لاي لي اخوانا لي بوغا تخه خدنا فعل اخره غير يون توكس او لا ميس اخوانا ميس قال اخره مي دم لتا خدنا فعل اخره سول خديم دال كو غار نجاري مال نكو لاي لي اخو بوغنا جام فو مج فسطرا garinami mi settige akramtani ikrama man ma faal wa kullu ma aradtu min kan rogale ya xami ku a xam fiin muradu qalbiya muradu laayi ku siñ bama bugu ku siñ bama fañ na te fañu kon koyo fogole rew fu maak fogo njaay besan ne garta in tungar yo ina tuuba te jam hadna fa alaxira njoko njal njoko njal aleykum wa taala wa barakatu njoko njal sëriñ min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 yëpp di ñaanal mboolem kilifa lislaam yi ak fu ñu mën a nekk di ca beral loxo nag sëriñ Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi di ñaan yàlla mu dolli fa yàgg lool te ànd ak wér boo xam ni taxawaay bu mat sëkk la ci dëkk bi di ca beral loxo itam ki nga xam ne mooy déruñ sëñ Muntaxa ci dëkk bi muy sëñ Mouhamadul Fadil mooy itam ku ne gis taxawaayam taxawaay bu Euh, tànqam liwul kenn waxtu ne mu ngi ci kanamu mbooloo ne ci seen gannaaw ne ci wet gu nekk. lépp ci mm. lépp loo xam lu ñu soxla. Mm. di ko ñaanal moom itam mu doole fee yàgg. di ñaanal doomam ju baax ji mu feebal sëñ Abdul Akim. Mm-hmm. moom itam ci xam-xam bi ak yar bi yéen fi yàlla yàggal moom itam. Mm-hmm. di ñaanal sëñ Mahfouz gannaaw bu ñu ko nuyoo di nuyu nag mbooloo mi yëpp. di wax alhamdulilah rabbil alamin bi ko yàlla dellusiwaatee ci ñun xew-xew bi di ci ndokkeel ñëpp muy xew-xew màggal nga xam ne waajal ko ci lañu nekk nii te Serigne Touba waxoon ne lépp lu mu am ci bis boobu la ko am moo taxoon moo xam ne bu ñëwee képp ko xam ne sama mbég si muy nang ma ci sant la yàlla loo man dala ci ganaar ba ci gileem kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi ci ndokkeel ñëpp nag bisu l'islam bi yëpp la waaye rawatina nag yoonu murit moom seen bis la xaasatan ci ndokkeel ñëpp di ci di ci ziyaara ñëpp lii na ngeen xam ne jëmmal ngeen ko taxaw tey ginnaaw bi ma nuyoo maire itam ci taxawaay bi nga xam ne benn taxawaay la mooy itam taxawaay bi am na lu muy firnde ndax 1895 ña fi nekkoon boobaag léegi téeméer at ak ñaar fukki maire doon fitnaal sëñ bi ah ak di ko teg ko teg tey bu ñu taxawee fii lu bokk ci lu bokk ci moom te loolu sëñ bi junjoon ko toog ànd ak yéen mars kon naa ne day firndeel rek mbirum sëñ Tuubaa loolu lay firndeel mooy mooy taxawaayam bii tey bu ñu demee ba lépp mujj ci loxoom waa ne fii ànd ak bi kilomètre yi ngeen dox yëpp mu ànd ko moom kon day wane ne sëñ Tuubaa moom dara am mbir mi bu amee lu muy firndeel day firndeel ndeket dëgg rek mooy mujj sëñ Tuubaa daa waxoon ne alxaqu saabitun wa amal baatalu wa in ala fa saayiqun wa saafilu nee na dëgg mooy mu kawe kawe ci suuf rek la jëm tey wane ne ñoom lañ nekkoon ñëpp doon dëgg moo tax ci suuf bu amee lu muy firndeel day wane ni kat sëñ Tuubaa amul tànk gannaaw waaye tànk kanam rek laam lool moo ko waxoon kat wa bil yawmi yun sii nii kasaabi xat ne sama tey junne daf ma day gàccal sama démb da ko ni ko noonu ëllëg it bu ñëwee day gàccal sama tey kon loolu loolu rek lay firndeel tey loolu rek lay firndeel ñu leen ci ndokkal bu baax te di leen di ziar eh. ah, waaw kay ñu ngi loolu lay loolu lay loolu lay firndeel loolu lay loolu lay wane jëlee Serigne Touba fii yóbbu ko ci géej mu defa nekk ba novembre 1902 mu ñibbisi lu doonoon ay natt ñu tekk ko moom sëriñ bi boole nañ ko ko nag boole nañ koo gaynde gas nañ am yeer dugal ko ci jéem nañ koo fetal xiifal nañ ko lu nekk dugg nañ ko lu lu ne dugg na ci waaye dara dañoo mujj delloosiwaat ko rek tiit loolu ci ay mbiram dem ba yaakaar ne ndax di ko wax ko da ngay signé ne doo doo doo wëlbati ko mukk xeex ñun mu ne afawtu anil aada turoon li ci man na faam di xëy di sama del la jigal naa noonu Eh, yëm ñëpp ngir jëmmi saa borom duma duma xeex ak ñoom mukk kon ñaaf téeméer at ak ñaaf su luy xewee kon day wane na daal ndekk dëgg rek moom mooy mujj waaye itam Sëriñ Tuubaa tànki kanam rek la am waaye amul tànki gannaaw hmm. bay di mbokk mi doon wax léegi raamo masiri ila jurbe la daa la saseen law aayeno sirrama fi sirri ma raw ma lii ci la bokk mu ni gaa yaa ngi bëgg na tey ma dem njaareem tey ñu xamoon secret bi nekk si mag dem njaareem tey bu ñu xamoon mbóot mi ci nekk kon duñ bëgg ma dem jaare mbokk waaye bu ñu xamoon fii rek la mujj ah ñoom ñëpp suñ borom maasa tàgga seen ko jox ko Sëriñ Tuubaa kon ma ne lii du kon kon duñ ko andi jaare ah kon duñ ko andi jaare mbokk la mu waxoon ne fa sayru mawtun ala man naasau waasan wa annahu li ibqaahu ikraamu man sama dégg njaarim seenu faatu lay doon ana ku leen déggati 1917 lay téeméer at ak ñett kenn déggatu la ci bopp mbedd yi tubaab bi lañ ko tudd woon ak ñu bokk si ñoom tey mbedd yëpp sëñ Tuubaa waa këram foo toll jàkk yaa ngi fi daara yi xas day jolli nit ñi tudd yàlla mbooloo mi naan jërëjëf sëñ Tuubaa tamit dëgg seen xol ca ngoon ba nañ si kenn soxlaatu la lekk kenn soxlaatu la naan kenn ku ne lay yëngu ci xol mooy sëñ Tuubaa rek ma ne kon lii rek mooy lu am solo yàlla na sëñ Tuubaa fay leen boppam tey dem gis na ko dañ leen fayal boppam njaareem nag wax dëgg yàlla bu ñu lii ah def nañ li ñu war a def fii la sëñ Tuubaa njëkk a màggale 1921 fi la sëñ bi njëkk a màggale booba demewut deme demewu dem jamono demewut nii aw bay la fekk ma yor ko mu wecc am xar daal di santaane ñu ñu defar ko mu wax nañ koy def ni bis bii la fekk ma te sama fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar bis bii ma fi jëloon yóbbu ca tukki ba bis bii am ci bis bii laa ko am bis bii ba sëñ bi nekk ci liggéey saa su dellusiwaatee moom fukki fan ak juróom ñett ci weeru dañuy fulaat nattu ñaari téeméeri nattu yaag juróom ñett fukki ak juróom dañ koy fulaat tegaat ko ci kawam waaye bi ndee ba liggéey bi mat itam ba añ bi jot itam saa bu dañ koy ful rek laajee neex neex buñ ci ci am da nga xam juróom fii fii ci Njaareem hmm? dund goo xam ne kenn mësa gis suñu mel ci histoire net ci li nga xam ne moom la taarix net rek jàkk ji ci biir kër gi fi la daan jiiteel mag ñi waxtu juróom yëpp fi la ko daan jullee rëdd jumaa ji 1900 18 mu egg 1924 rëdd daaray kaamil ci ci jàkk ji la daan waxtaane di wax naan aras laa jóge léegi ñëw jiitu si la loolu fi jërëjëf Serigne Touba kon bu waa Njaaram defali tey man wax dëgg yàlla ah def nañ li leen war ah, kenn du ñëpp nañu xam ne kon seen bi liggéey na leen waaye lii ak njukkal gu ndaw la nag ci Serigne Touba nañ doonee góorgóorlu doolee góorgóorlu baax gën a jëme liggéey bi ci kanam kaddu yu bari nañu ci war a jël kaddu bari na ñu ngi leen di jéglu nag bu baax ci kaddu yi ni ma ko bëggoon du nii waaye maa ngi leen di jéglu te la baax yàlla nañu ko fekkee jàmm te kenn ku ne lañ ca nësër ak la nga ci yéene suñu borom dafa la ci lu kawe suñu lot yàlla nañ ci dajee gërëm ak sëñ Tuubaa ñëpp sëriñ bi yàlla nañ fi yàgg maire yaa xam ne nga bëgg sëñ Tuubaa yàlla nañ ko am waaye lii mbirum sëñ Tuubaa ma rek lay firndeel la waxoon ne rek ah man sama dem njaareem seen torox sori waaye man sama teraanga lay doon lii ci la bokk bu njëkk bi meeru dëkk bi ñëw ànd ak ñun ci marché bi yëkkati alalam def si dox ànd ak mbooloo man kon loolu day wane ne sëñ Tuubaa daal la waxoon ne sama tey ñu ne day gàccal sama dem loolu rek la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbooloo mi euh, sëñ Sidi Matar yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér euh, ñu ngi di sëñ Muntaxa di ñaan yàlla yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér nuyu sëñ Alaaji yàlla na yàgg lool te ànd ak wér amiin sëñ Moussa Nawel aussi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di nuyu sëñ Mahfous mi nga xam moo fi nekk fii tamit di ñaan yàlla moom i tamit yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ah di nuyu tamit euh, sëñ alaaj mi nga xam ni tey moom moom moo ñëw dara jël bés bi di ko ñaan yàlla tamit vraiment yàlla na koy fi yàlla yàgg lool tamit ànd ak wér ak sëñ ab sëñ Abdou Akim waaw tamit di ko ñaanal yàlla lool yàlla fi yàgg lool ànd ak wér ak di nuyu imaam moom tamit vraiment yal nañu yàlla yal na ko fi yàlla yàgg bàyyi lool mu yàgg ñu jiite. donc ñu ngi nuyu mboolu mépp ndax man xam naa tey du ma fi jël kàddu ndax tey comme ni ko imaam waxee léegi tey la sëñ bi doon ñaan am na. tey nasawaan bi nga xam ne moo jiite woon fii. tey jii yàlla def na tey ji may meeru njaarim ni bàpp ci suuf bàyyi sañ Tuubaa toog ci kaw loolu na sëñ bi waxoon tey te loolu lay fi ne ni sëñ Tuubaa lu ma doon wax rek moo am tey moo tax tey ma toog suuf bàyyi sëñ Abdou Hakim ci kaw kon nag jërëjëf sañ Tuubaa maa bëgg nii ñu doon dox tey ñun ñëpp di ko dox ngir sëñ Tuubaa di ko sant rek damaa bëgg yéen ñëpp ngeen jàppal ñu sant sëñ Touba ndax tey ab taalibe laa fi tooge aw ma wax lépp lu ma wax sëñ bi laa bàyyi ma wax ko damaa bëgg ñëpp ñu ne jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba ñu ngi sant mbooleem suñu kilifa yi suñu tuddee suñu fekkee yóbbaale nañ ñëpp ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant mbooleem ñu ngi bokkal sëñ Touba te nekk ci jotaay te ñoom ñëpp ñu bàyyi woon seen yitte ànd ak ñu mbooloo ñu leen sant bu baax a baax. duñ leen mën a lim ndax suñ leen limee dañuy juum waaye suñ tuddee sëñ Mahfous seen sëñ Modou Mbacke yóbbaale nañ ñëpp ñu leen sant baax du ñu mën a jàll te santuñu suñu suñu waajur yi suñu kilifa yi di waa Daaray Kamil nga xamante ni taxawoon nañu bu baax a baax ci liggéey bi su ma tuddee Daaray Kamil nag xel yi war naa am ci dundam mu di alxuraan kenn mënta tudd Sëñ tubaa di ko sant di ko gërëm te tudd alxuraan nga xam ni bi ñu xëyee nagal si daaw téeméeri kaamil ak fanweer ak ñaar la woon ren ñu ngi jàng téeméer ak ñeent fukk nag tawfeexu Sëñ Tuubaa la ñoo xam ni li ñuy defar Sëñ Tuubaa jiital nañ ci li nga xam te ne moom la gën a bëgg mu di alxuraan ñuy sant baax a baax mbooleem daara yi nga xamante ni ñu nekk ci ci gox bi di sant suñu kilifa yi nga xamante ne bii ñu nekk suñu gannaaw sëñ Malick Fall ñëpp wax nañ liñ ci war a wax sëñ Touba moom ku man boppam la ku ko taxaw mu taxawu la ku ko jéem a yëkkati mu yëkkati la nañ ko bàyyi ak sëñ Touba du ñu fàtte préfet ci wax ju rafet ju sell ji nga xamante ne wax na ko jëme ci mboole mi xamal nañu lépp rafet na gisal na ko boppam loolu nag taw féex la moom it nga xam naa ni amoon na yéene sax ñoo toog fii loolu day dëggal li ñu wax ci mbokk yi nga xam te ñoo fi jóge ndegam sëñ Tuubaa moo wax ni malaka ni hubbu suñ borom moom la na ko bëggu góor yàlla yi ku ku bëggu góor yàlla yi la wax de kon ku bëgg ku moom bëgg moom nga xol ndax xol mooy bëgg ku moom xol moom nga jëm kon sëñ Tuubaa moom ñëpp ñu ngi sant bu baax a baax uhuh. mboolem ñi ñu àndal liggéey bi ah sonn nañ lool te ay jàmbaar lañ ci mm-hmm. di ay commission yoo xamante ni bàyyi nañ seen yitte mm-hmm. ñii di ay étudiants ñii di ay élèves te wax dëgg yàlla Pastef rek lañ ci duggee mm-hmm. su ma tuddee waa ahlu safar bu kër Cheikh tudd waa collation ñu yor lu sedd yi nga xam ne waa université bu Bambey ña nga fag lycée LTAB ña nga fag lycée Ndayane ma nga fag ak waa Touba waa Tivaouane waa Thiès waa Dakar ñoom ñëpp foofu la ñëw yendu si ay mbooloo bàyyi seen yitte yëpp ngir bis ñu ngi leen sant bu baax du ñu fàtte waa Kuude seen jàmbaar fu ñu ko nag weesu na ko waaye nag waa Kër Sëñ Mbay nga xamante ni bii tey li ñu def yëm na ñëpp ñu indi ñi di ndékki nga xamante ni ñoom lañ jagleel waa alxuraan yëm na ñëpp ndax gis nañ ci yokk bu wér a wér ndax laax lañ doon def te am ren soppi nañ ko def li nga xamante ni moo di teraanga ju yaatu yoo xamante ni bii mënuñu ko lim ñu ngi koy ñu leen sant bu baax di sant ñëpp oto yi ñi ko indi solo yi ñi ko able te sëñ Tuubaa rek tax ñi jël seen ñaq joxe ko te sëñ Tuubaa rek tax ndax buñ umpalee ni doon nañ laaj ñaar téeméer ak ñaar fukk juróom-ñett ngir barkeelu ci ñaar fukk juróom-ñett yi ci ndigal li sëñ Tuubaa joxe woon fii mhm. ñu koy dajale di ko yóbbul sëñ Sidi Muxtaar nga xamante ni ñetti fan rek bu ñu noppee dinañ ko yóbbu ñaar yi doon xéewal yi te xéewal yi yaakaar naa ne ku ne gis na ko ndax ñëpp ñu ngi doon teralante teralante ci suñu biir ñi ñuy romb ñu ngi ñuy teral ñun ñuy demit ñu ngi teral ñi ñu romb loolu nag suñ tubaa rek moo ko man lii nag wax dëgg yàlla dañuy bañ bu doon dañuy waade wàcce suñuy kàddu foofu sant nañ ñëpp presse bi nga xamante ne ñëw nañ rajo yi nga xamante ñoo nekk ci dëkk bi fàttewuñ leen nañ xam ni waxtu wi moo gàtt ñu bëgg a njëkkanteeg waxtu yi waaye nañ xam ni lii nag misaal la wër nañ di sant Sëriñ tubaa bu baax a baax léegi nag nañ ko jëmmal damay damay damay damay wax rek monsieur le mi ngi fi ak ñeneen ñi donte ñu ngi tudd ni barab boobu fa leen téye woon Sëriñ tubaa mu di résidence nekk école Ibrahima Thioy xaw ma wér na xaw ma wérul waaye lu mu man lu mu si man di doon defoon ko kër Sëriñ tubaa moo gën ndax dafa jot ndax booba bi ñu ko fi indee ba léegi nam mel ku ne gis na kër gu mag de day yokk këram gii day yokk te la mu waxoon ni suñu xamoon ni dikkam fii si njaarim seenu seenu seenu perte lay doon ci seen jëf suñ ko xam loolu rek misaal la xoolal bërëb bee nam mel tey sëñ Tuubaa doo ko mën a dimbali ku fa romb yéemu waaw waaye nag barab bu sëñ Tuubaa tànnal boppam bokkut ak barab boo xam ne dañ koo tànn yóbbu fa sëñ Touba darab barab boo gis ñu koy siyaar rek sëñ Touba moo ko tànnal boppam yóbbu ko waaye barab boo gis mu mel ne mu mel rek dañ fa yóbbu woon sëñ Touba waaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen tuubal di fas yéene jébbal kàddu yi rek suñu kilifa yu baax yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax wax dëgg yàlla di waxati jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba balaa déwén yàlla nañ teg xeer woo xamante ni bii rek ci bërëb boobu ñu ne kër sëñ Touba la jàkk am fa jàngukaay am fa lépp am ñu def ko addi sëñ Touba monsieur le maire bu dégg nga ko wax dëgg rabbil nabi lumi wa ala wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa zuriyatihi wa sallim barkeb Cheikh Ahmadou Bamba mbokk jullit yi mbokk taalibe gannaaw buñ sant yàlla sunu boroom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal sunu jébbal ci Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul di ko feddalee ci borom daarul moxti mii sunu bunt ci moom ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam nuyoo ba gën a sell ci diggante jullit ak morom ma muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala di ñaanal Cheikh Sidil Mokhtar xalifatul am li tariqatil muridiya suñu borom yàggal ko fi te may ko wér ak mboolem njabootu sëriñ Touba gépp ak mboolem ñun taalibe yëpp di ziyaare itam ki nga xamante ni mooy borom barab bi jëmmal fi sëriñ Touba di Cheikh Mountakha Bachirou Mbacké di jël ak nuyoom di ko teg ci loxol sama xalifa bi toog di sama mag ñu bokk lépp ñu Serigne Abdou Akim Mbacké ndax man kat daarul moxti lay wuyoo waaye daarul minnam dama cee saf-saf ndax sama bàyyi keroog bi nga xamante ni toll na ci war a wattu ji alxuraan sëriñ Cheikh Awa da ko woolu ndakaaru mu ñëw mu bëgg ko yónni gànnaar mu wattu ji fa alxuraanam fekk sëriñ Basiiru mi ngi kër sëñ Cheikh Gaynde Fatma gi ci ridis sëñ Maxtaar yëg ko jàdd fa di ko siyaare ji mu daan ne ko ana looy def ci dëkk bi mu ne ko sama bàyyi ma fi woolu mu ne ko lu mu lay doyee mu ne ko daf maa bëgg a yóbbu gànnaar ngir ma wattu ji sama alxuraan sëñ Basiiru ne ko déedéet gànnaar ab weexaay rek ka fa des baati nag wilaay sëñ Bamba rek koo ko dese neel sa bàyyi doo dem téye naa la moo ko téye mottalil ko alxuraanam ba mu mat moo ko jàngalal boppam tasaru si xaar jox ko sëñ ma dem mu jàngal ko risaala jox ko sëñ Mor Mbay Siise mu jàngal ko mu xaddimatul isiya jox ko sëñ Mat Lamin Jóob Dagana mu jàngal ko mu waay bul xuduus mu woowaat ko yee ko jàngal ko àddina ak sëñ Bamba doo ko yeewi ñaanal ko ci poroxal kon sama bàyyi kon man daarul mi nam saf naa ci sàpp beneen bi ci topp kër gii di kër Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ku dul ci ma fi teewal di Cheikh Ibra Faati ndaamal daarul moxti musu fee am néeg fii la daa fanaan te Serigne Touba ci joxe woon ndigal keneen ku mënti doon sa kër a ngi ci bit kon ba tey safaat naa ci sab bala maa sori monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la xamal ni dafa am benn philosophe tubaab buy wax ni c'est une réalité du tous les temps que ce ne sont pas les zéros que ce ne sont pas les zéros qui font l'histoire mais c'est l'histoire qui fait ses propres zéros bu nekkee Sénégal di tudd héros national di tudd Lat Dior Diop mbaa keneen ak keneen bàyyi Cheikh Ahmadou Bamba histoire moo créé ay héros waaye Serigne Bamba nekk fi géerut xeexut tuuru deret bakkan rotut ki nga xamante ne moo daan ñëpp Lat Dior buur ba Jorof Barak Waalo Siin Saalum Kajoor ak Bawol ñëpp koo fi ma a tudd maamam rek mu tër ko yóbbu Sëñ Bamba juróom-ñaari at jël ay pexeem yëpp ba ay pexeem jeex mu dellu si ko te mënalu ko dara koo koy bi kon nag bu yàlla suñu borom dogale nga ñëw fii tey bër bërki Dembo Ndiaye commandant de cercle bi nga xamante ne moo daan fekk fii Cheikh Ahmadou Bamba ñëw jàkkaarloog moom ànd ak ko xajam sol yi botam jël caravage am di ko fëgg ci bot yi naan ko danoo bëgg nga jële fi sa mbaar yi fekk xaj bi baw na sëñ bu mag bi ñett yoon sëñ bi na ko xaj bi tàgge na ma sa ndey léegi ca France mu yor yaree di ko googee tey jii nga ñëw fi jiite réew mi toogal fii sëñ Bamba ci suuf kon xam ne sëñ Tuubaa na dëgg beneen bi ci toppit lii yaako fi njëkk a def ñun nag nu waaye téye sëriñ Tuubaa ñu téye nin ndax wa kullu man yëgaay gën yi wa man bañaani atta toroxani sëñ Bamba rek la nam lii nuy wax nag lu nu gëm la te lu nekk ci ñun la ndax yow xam nga ma bu xam naa la bu baax sama nijaay ñoo bokk benn deret Omar Penda Coro Fall mii sa baay ak Njóoba Géey képp boolewul lan bokk bari na xam nga ni du ma raayal kenn gannaaw du ma wax kenn itam lu ma gëmul li ma yor sëñ Bamba rek ma ko jox te sëriñ Tubaa la muy joxe bakkan mënu koo jële ndax doomu aadama ay pexe rek la am te du ay pexe doon xañ sëñ Tubaa li mu yor lu waay bari bari pexe ci kaw suuf nit ñu weex ñee la ko pële ndax lu fi samp ñooma te seeni pexe jéemal nañ ko sëñ Tubaa ba jeexal te mënuñu ci dara sëñ tubaa li mu yor payuk suñu boroom la te payuk suñu borom ay pexe dindiwu ko lii ma yor sëriñ tubaa ma ko jox te du dañ bu mukk koo xamante ne la la yor nag wër na ne du dañ te boo faatoo sax sa bammeel mën a yor sa kër war ngaa rusa jay kenn loo wax dëgg la kon nag loolu ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm te njëkk gii nga ko njëkk a def yàlla na feeñ ci yow ba nga am ci loo xamante ne yaa ko ciy njëkk am sëriñ Abdou Hakim ñu ngi lay sant di la gërëm di la ziyaara bu baax itam ndax lii nga defal sa maam boo ko ni doxee ñun ñii di say rak di xool ci yow topp sa ginnaaw sunu xel dana dal ndax wax ji wax ji itam murid yi sëriñ Tuubaa gëm mën na noo bankal ku nekk seeni woom mën na noo sëgg ci kanamu ku ne waaye li waral sëgg geeg bank wóom yi bankul seen xel yi dun ay dof kun gis ci yow sëriñ dana la jàpp kun gis ci yow leneen ne lu fi yal banding ndax Serigne Touba rek ko fi nekk kon nag Mbàkke ñu ngi lay sant di la gërëm yéen taalibe yi itam na ngeen xam ne ki nu yàlla suñ borom booleel di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ki la defal lu la kenn mënulu defal la lu la kenn dul defal danga koy téye noo téyewul kenn jàppe ko noo dul jàppee kenn gon dafa am ku koy xool fii ba ci yàgg ne ko yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay ku baax ki ne ku wëlbét ne ko dikkal ma jàngal la waxin mu dikk mu ne ko da nga naa yaa gën ci man sama ndey yaa gën ci man sama baay ne Cheikh Marou bëggee xam nga lu tax moo xoloolu mu ne ko déedéet Mbàkke mu ne ko li ma mën ci yéen ba di ko ci def ku ko ci sa ndey mënoon wala sa baay yemale ko ci boppam li nu Sëriñ Tubaa defal du liggéeyum ndey du barke baay du wërsëg du muur ndax lenn tollu lu moom la neex rek mu boole nu ci boppam ndax yaxfiru li man yacha wal yuadibu man yacha képp kum dimbali dimbalu suñu borom la kon nan jàpp Serigne Touba teg ko fun tegul kenn te duñ fa teg kenn ba laa yow mi diine lii mbëri làmb yi xewal di wax naan gannaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur sant sëñ tubaa waxi kasaw kasaw la li nu sëriñ tubaa mënal sunuy waajur lu nu ko li tax buñ sante yàlla teg ci yonent bi tamit mbindeef moo tax ñu war cee teg sëñ tubaa doog cee teg waajur yi nan bàyyi di jël kenn di ko jiital di teg sëñ tubaa ci ginnaawam ndax li sëñ Moussa Ka doon wax cam soo ko xiyaas mu yées ko te moom place boo ko wutal mu fees ko bis bii nag ci lanu sëriñ tubaa defal sunu lépp te ni mu wutee góor yàlla yi ko fi jiitu woon ñooñee ñëpp kenn ku ci nekk loo daan lijjanti sa digganteeg say ñoñ ña la suñu borom booleel da ngay bàyyi ba yoomal am Serigne Touba dafa ne yàlla suñu borom nay tey na leer fii ndax keroog bi nga xamante ne liggéey bi mat na ca Gabon sallallahu alayhi wa sallam wàcc ànd ak waa ahlu badrin jépp ñu di ko yeewi bi sallallahu alayhi wa sallam dikkee daf ko ne danaa la fay lu toll ne ardu adim mooy peppi suuf sëñ bi ne ko bëgg naa lopp lool mu ne ko danaa la fay lu toll ne xobi garab ak mboolem luy meññinteef sëñ bi ne ko bëgg naa lopp lool mu ne ko danaa la fay lu toll ni duusi géej gi sëñ bi ko ba tey bëgg naa lopp lool mu ne ko kon nan dellu ca suñ borom bi ma boole woon yow ndax moo am sa pay looloo indi wa xaadali muhammadi li samadi te dala ni allahu ala muhammadin moo ko jiitu woon àndee dem ca suñ borom suñ borom ne sallallahu alayhi wa ndax ma defal ko jubu na la mu ne ko moo tax ma indi ko fi mu ne ko ahmadu la nga waxante woon ak nun def nga ko waaye yow tey ana loo wax loo bëgg mun ne ko dama bëgg nga nandalal ma samam xel ba mu ëpp xelum koo mës sa bind te loo xalam mu ànd kun fay koon te boobu sallallahu alayhi wa sallam ngi toog mu a ko nangul naa la ko mu ne ko kon fooy tàmbalee mu ne ko dama lay delloo njukkal gi ca la nga waxoon wala xadd karam naa banni aadam wa amal naam fi l bari wal bahri wa zaqnaahum min tayyibaati fadanaam ala kasirin mimma xalaqnaa tafdila ne gestu yam sallallahu alayhi wa sallam ne ko kon wa jëhtu wajhi liman takrimuhu baana fii chahri mawlidi man fi l bahri rabaana lillahi shukriya fii chahri rabbi huna alabtidayi lazi lixtaara qurbaana diggante boobu mbooleem li ko yaakaar teew kanamam mu ne ko kon iñhal rujuhi ilaa xaw mi saadatana wal takfina yow ma jamhil xalqi niraana ne ko mbooleem li ma yaakaar te faatu ak li ma yaakaar tey dund ak li ma yaakaar te juddoogul ñoom ñëpp nan dem aljanna ku mënta bind ci jaww ji mënoo bind ci ndox mënoo yóbbu taalibu Serigne Touba Sawara suñ borom ne ko yàppat problème kon nag ka ñu defal loola nan ko jàppee nun jàppewul kenn te téye ko nun téyewandiwul kenn beneen bi ci topp mooy nanu xam ne Serigne Touba aw doxin la woo xam ne kum nekk ci yow boo santu Mbàkke sax mat a topp nan ci bàyyi xel kenn ku ci nekk ci ñun war ngaa gëm ne war ngaa mën a doon Cheikh Ahmadou Bamba ci aw doxin Sëriñ Tubaa du aw sant Sëriñ Tubaa du aw deret Mbàkkeek mbeng nga yam boo ci génnee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ndax Sëriñ Tubaa fi la fekk Mbàkke te taxutoon ñu teg Mbàkke fi nu ko teg tey kon bu dikkee ñu teg fi Mbàkke tey Sëriñ Tubaa tax waaye lam def kër Cheikh Ibrahima Fall def ko kër Cheikh Issa Diène te koo fa dem fekk fa la ngay fekk kër ma du Bamba ak njabootam moo lay wane ni Serigne tubaa aw doxin la nan góorgóorlu ci doxin woowu te gis aw nit muy dox ci mbedd mi foo ko gisee xeeb lu bokk ci yoonu Serigne tubaa ci aw doxinam wala colkom wala waxinam wala leneen ak leneen tooñ Serigne tubaa la mm-hmm. moo xam ñu lay wooyee Baye Fall moo xam ak nun lay mën di woo ak keneen ak keneen lii nu xewal tey bokkut yoonu murit ñu bari jàpp nañ ne tey balaa ngaa mën a doon Baay Faal dangay naan sàngara di màndi mbaa nga rast yu tilim def tànku neen di taxawaalu di màjjal te loo ci jëlee dem yóbbu ko ci baar ba loolu jotiwut ak Cheikh Ibra dara ku ko wax waxoo dëgg kenn ku mës a ñeme yàlla ba mën a nettali fu Cheikh Ibra mës a naanee sàngara mëntu am kon nan bàyyi li ñuy def te te Serigne Touba sag bii mënu defal nii mënu terale ñu delloo ko njukkal li Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon nan jaamu yàlla sante ko Serigne Touba. Mhm. te liggéeyal Serigne Touba jaamoo ko yàlla suñu borom. Mhm. te xam ne monsieur le maire ñu ngi lay fàttali nga waxal ñu autorité yi ne fii dëkkub sëriñ Touba la. ñeenti quartier fi am Medinatul gii Cheikh Anta Borom Gaawaan Cheikh Ibra Fall Thierno Kañ ñett yi ku dégg seen tur xam ne sëñ Bàmbaa ko moom. la des ak dox dajale ñun ñëpp ko bokk am naa ca wàll maa nga ca Grand Diourbel te maa ngi fay tabax tabaxal sëñ Tuubaa jumaa te bala maa bala maa bala ma faa jóg mu mokkul mbokk kon nag ñu ngi leen di xamal ne fii dëkku sëriñ Tuubaa xam nga fa may waxe kon baax na wasalaamaaleykum wa rahmatullah bi ne aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalaam alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalaam ala alhaadi alamin ala alhaadi alamin sayyidina mawlana muhammadin almakin sayyidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi radwani wa tamkin wa ala alihi wa sahbihi sawi radwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëñ Abdul Hakim Mbàkke ne asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokk yi fi bokk yi fi teew yëpp sunu kàddu nee na mi ngi yëkkati ak kàddoom ak nuyoo sëñ Abdul Hakim nee na akuk nuyoom akuk cant akuk cant bu bàyyi ko ci Cheikh Mahamadou Fadal bu bàyyeekoo ci cheikh Mouhamadul Fadal. moom mi nga xam ne. moom mi nga xam ne. moo nu joxoon ndigal ñu ànd ak yéen ci liggéey bi. moo nu joxoon ndigal ñu ci liggéey bii. kàddu yi ak nuyoo bi. kàddu yi cant yooyu ak nuyoo yi. ñoo ngi ciy jiital imaam Makhtar Diop. ñoo ngi ciy jiital imaam Serigne Makhtar Diop. di rafetlu bu baax. kaddu yi. di rafetlu bu baax kàddu yi. macha allah rafet na. macha allah rafet na. yàlla na ca njëriñul wax topp. yàlla na ca njëriñul wax topp. te mooy dégg ak jëfe. te moo di dégg ak jëfe. di nuyu sama bokki bopp yi ma fi fekk. nee na mi ngi nuyu bokki boppam yi mu fi fekk. Serigne Modou Mahfouz. Cheikh Mouhamadul Sam. ak Serigne Sam. ñeneen ci sama bokk yi ma fi fekk. ak ñeneen ci bokkam yi mu fi fekk. di rafet lool jotaay bi. di rafet lu lool jotaay bi. di ci am mbégte mu rëy rëy. di ci am mbégte mu rëy rëy. xam nañ ne. nee na xam nan ne. lépp seen yëfi maama. lépp seen yëfi maama. kon kenn waru leen ciy jiitu. kon kenn waru leen ciy jiitu. te jëfe nañ ko. te jëfe nañ ko. kon nag yàlla na leen seen maam fayal leen seen boppam. di nuyu monsieur nee na mi ngi nuyu monsieur le maire Malick ko sant bu baax. nee na mi ngi lay sant bu baax. mel na ne xam nga li tax nit ñi teg la fi la teg. nee na mel na ne xam nga li tax nit teg la fi la teg. ndax fiñ la teg sa jëmm taxul seen bopp tax. ndax fi ñu la teg sa jëmm ji taxut seen bopp a tax. mel na ne xam nga ko. nee na mel na ne xam nga ko. ba ànd nga ak ñoom ci seen lépp. ba ànd nga ak ñoom ci seen lépp. rawatina sunu bis bii. rawatina sunu bis bii. te noonu dañoo amul lu may Serigne Touba. te noonu amoon lu may Serigne Touba. bu nu ci nekkee. bu nu ci nekkee. ku nu geesu gis la ca rek. ku nu geesu gis la ca rek. dañ lay daal di jàpp sunu fukki loxo. dañ lay daal di jàpp ak sunu fukki loxo. kon nag Fall jërëjëf. kon yal na yàlla dëgëral taxawaay lii sa yéene ci dëkk bi. lii sa yéene ci dëkk bi. yàlla na la yàlla kàttanal ba nga mën koo def. yàlla na la yàlla kàttanal ba nga mën kaa def. gannaaw bu loolu wéyee nag. sëñ Abdul Hakim Mbakke ne nag gannaaw bu loolu wéyee nag. ah bokk ñun ñëpp sant yàlla. ñu bokk ñun ñëpp sant yàlla. ndax fekke woon nañ ko daaw. ndax fekke woon nañ ko daaw. ñaanoon sunu borom may ñu fekkewaat ko. ñaanoon sunu borom may nu ñu fekkewaat ko. dañ bokk ñun ñëpp te nu bokk ko ñun ñëpp ñaanal ñi nga xam ne ñaanal ñi nga xam ne fekke woon nañ ko daaw fekke woon nañu ko daaw te yàlla dogalul ñu mën ko fekkewaat te yàlla dogalul ñu mën ko fekkewaat benn ñuy way jiitu benn mooy ñu way jiitu walla muy ak wéradi walla muy ak wéradi wala muy gàllankoori jamono wala muy gàllankoori jamono bu dee bu njëkk ba bu dee bu njëkk ba nun ñëpp nanu maase nun ñëpp nanu maase ñaan leen yàlla njëggalu yàlla ak yërmande ñaanal leen yàlla njëggalu yàlla ak yërmandek yàlla bu dee wéradi wala tolof tolof jamono it bu dee wéradi wala tolof tolofuk jamono yàlla na ko yàlla woyofal te jeexal ko ci jàmm yàlla na ko jeexal ko ci jàmm ah, nu xam ne nag sëriñ Abdul Hakim Mbakke moom sëriñ Alhaaji Fallilu Mbakke moom Cheikh Amadul Basir nee na ñu xam ne nag bis bi tax ñu daje. bés bi tax ñu daje. di ko yëgle. di ko yëgle. di ci wane sunu mbégte. di ci wane sunu mbégte. sunu jàmbaar ju mag ja. sunu jàmbaar ju mag ja. moo ci amoon mayi sunu borom. moo ci amoon mayi sunu borom. ba tax mu bëgg cee sant sunu borom. ba tax mu bëgg cee sant sunu borom. waaye cant ga na mu ko yéenee. waaye cant ga na mu ko yéenee. tax mu digal taalibe yépp tax mu digal taalib bi yëpp. na fu ñu fi mën a nekk. nee fu nu fi mën a nekk. bu bés bi ñëwatee. bu bés bi ñëwatee. nanu ko ci santale yàlla. nanu ko ci santale yàlla. muy jëf ju ko yàlla jëfal. muy jëf ju ko yàlla jëfal. mu di ko sant. mu di ko sant. ñuy jëfe ndigalam. ñuy jëfe ndigalam. waaye ñun ci suñu bopp nag. waaye ñun ci suñu bopp nag. ameel nañ cant gu rëy Serigne Touba. ameel nañ cant gu sëriñ Touba. ndax tawfeex gi mu ñu tawfeexal. ndax tawfeex gi mu ñu tawfeexal. ba ñu bëgg bokk ci ñoñam. ba nu bëgg a bokk ci ñoñam. loole cant gu rëy rëy la. loolee cant gu rëy rëy la. sant sëriñ Touba nag. sant sëriñ Touba nag. war nañ ko fas ci sunuy xol. war nañu koo fas ci sunuy xol. tudd ko ci sunuy làmmiñ. tudd ko ci sunuy làmmiñ. waaye jëfe ko ci sunuy cër. waaye jëfe ko nag ci sunuy cër. noona dara jiituwu ca nag noonee dara jiitu ca nag mooy sunu jëmm yi muy sunu jëmm yi ñu melal ko ñu melal ko melokaan wu dëppoo ak bëggam melokaan wu dëppoo ak bëggam moom Serigne Touba te loolu te loolu mënee su ko def mukk mënee su ko def mukk ci lu dul ak xam ci lu dul ak xam ndax ak xam ndax ak xam moo mën a dimbale moo mën a dimbale doomu aadama doomu aadama ba mu mën a jëf lu am njariñ ba mu mën a jëf lu am njëriñ ndax jëf bu àndut ko xam ndax jëf bu àndut ko xam coono bay bari coono bay bari waaye njëriñ la day néew waaye njëriñ la day néew te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sunu borom di wax ak moom bi sunu borom di wax ak moom loolu la ko njëkk a digal loolu la ko njëkk a digal kon nag kon nag jot na sëkk jot na sëkk ñu jéem a ñu jéem a tàmbale fañ war a tàmbalee tàmbalee fan war a tàmbalee te moo di ak xam te moo di ak xam xam li nu war xam li nu war sunu digganteeg sunu borom sunu digganteeg sunu borom xam li nu war xam li nu war ci sunu diggante ak wayjur yi sunu diggante ak wayjur yi waaye xam li nu war waaye xam li nu war ci sunu diggante ak Serigne Touba sunu diggante ak Serigne Touba sunu diggante ak sunu borom sunu diggante ak sunu borom jaamu ko ci nim ñu ko diggalee. jaamu ko ci nim ñu ko diggalee. wattandiku ay tereem. wattandiku ay tereem. sunu kem kattan. sunu kem kàttan moo ci jiitu moo ci jiitu. wayjur yi wayjur yi. ñu rafetal sunu digganteeg ñoom. ñu sunu digganteeg ñoom. di sonn ci seen i yitte. di sonn ci seen i yitte. di lewetal sunuy xarkanam di lewetal sunuy xarkanam di nooyal seen sunuy kàddu kàddu ci ñoom. sunu digganteeg Serigne Touba nag. sunu digganteeg Serigne Touba nag. mooy ñu jox ko suñu lépp rek. moonu mooy ñu jox ko suñu lépp rek. suñu lépp dara bañ cee des. suñu lépp dara dara bañ cee des. bu nu ko waxee ci suñuy làmmiñ. bu nu ko wax ak suñuy làmmiñ. nañ ko jëfee ci suñuy cër. nañu ko jëfee ci suñuy cër. te bu nu ko joxee suñu bopp te deseetuñ ca dara. te bu nu ko joxee suñu bopp te deseetuñ ca dara. kon danañ war jomb. kon danañ war a jomb. di ci jëf lu bokkut ak bëggam di ci jëf lu bokkut ak bëggam moom sëriñ bi kon jox gi suñu bopp sëriñ Touba kon jox gi suñu bopp sëriñ Touba foofu lañ njëkk a tàmbalee foofu lañ jëkk a tàmbalee lépp loo xam ne lépp loo xam ne ak bëggam la ak bëggam la mu tënkoon ci boppam mu tënkoon ca boppam tënkoon ca mag ña tënkoon ca mag ña te bind ko mu leer te bind ko mu leer dafa jot sëkk dafa jot sëkk ci ñu xam ko ci ñu xam ko ba mën koo jëriñoo ba mën koo jëriñoo ndax fi jamono toll lii nuru dara te du dara. lii nuru dara te du dara. dafa bari lool. dafa bari lool. ba àgg ci kenn ñimitu ko tudd. ba àgg ci kenn ñimitu ko tudd. ndax woddu nañ koo woddu. ndax woddu nañ ko waddu ba sax. ba sax doo ko ñemee wax. doo ko ñemee wax. loola nag. loola nag. li nu ca mën a dimbalee. lanu ca mën a dimbalee. mooy ax xam. moo di xam. kon maa ngi soññ ndaw ñi. kon mi ngi soññ ndaw ñi. ndax li fi ëpp. ndax li fi ëpp. ay ndaw lañu. ay ndaw lañu. nanu yittewoo xam. nanu xam. ndax bu nu xamul ndax bu nu xamul duñ mën a jëriñu ci sëriñ bi doon mën a jëriñu ci sëriñ bi sëriñ bi bëgg gi njariñ la sëriñ bi bëgg gi njariñ la waaye xam gi ba mën a jëfee ndigalam waaye xam gi bëgg ba mën a jëfee ndigalam moo gën a matale ci njariñ moo gën a matale ca njariñ yi kon nanu góorgóorluwaat bu baax a kon nanu gën a góorgóorluwaat bu baax a am na loo xam ne am na loo xam ne li may wax ci ñakk xam li may wax li muy wax ci ñakk xam mi ngi ñuy dal mi ngi ñuy dal muy lu doy waar muy lu doy waar mooy xasida yi nga xam ne muy xasida Serigne Touba da koo def. Serigne Touba da koo def. muy njariñul kese ci ñun. muy njariñal kese ci ñun. liñ bëgg lépp ci àdduna. liñ bëgg lépp ci àdduna. bëgg ko lépp ci àllaaxira. bëgg ko lépp ci àllaaxira. mu dëxañ ko ci. mu dëxañ ko ci. muy li muy li ñu gën a mën a wommat. muy li ñu gën a mën a wommat. jëmale ci sunu borom. jëmale ci sunu borom. muy li ñu gën a mën a fóot. muy li ñu gën a mën a fóot. ci ay. takk takk cay taq-taq ak i tilim tilim ak i tilim tilim waaye ñàkk a xam waaye ñàkk a xam tax na tax na ñu di ca doxe noo xam ne ñu di ca doxe noo xam ne ah, du ma ne loru du ca am de du ma ne loru du ca am de waaye doy na waar lool waaye nee na doy na waar lool ndax di ndaw ndax di ndaw yor doll bu fees dell say loxo yor doll bu fees dell say loxo foo jëm jëme ko fa foo jëm jëme ko fa doo xool barab ba nga ko war a defee doo xool barab ba nga ko war a defee doo xool waxtu ba nga ko war a defee doo xool waxtu ba nga ko war a defee bu ñu waxee bu ñu waxee ngay wutal sa bopp kuréel goo bokk ngay wutal sa bopp kuréel boo bokk man ci kuréel sàngam la man ci kuréel sàngam la man lii nangami yoon laa koy jàng man lii nangami yoon laa koy jàng damaa jàpp ne nee na damaa jàpp ne li gën a wóor daal li gën a wóor daal mooy doon taalib mooy doon taalib Sëriñ Tuubaa yii te téereem yii eh, wax nañ ne sëriñ Basiiru wax nañ ne sëriñ Basiiru dafa am ko ko masa laaj dafa am ko ko mas laaj ne ko xasida sëriñ bi ban moo ci ëpp doole nekk xasida sëriñ Tuubaa yi ba ci gën a ëpp doole mu ne ko boo ma waxee bi ci gën a néew doole ma xam mu ne ko boo ma waxee bi ci gën a néew doole danaa ko xam kon loola kon loola fii ñu toll fii ñu toll am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañuy dugg ci loolu dañuy dugg ci loolu te téere yii te téere yii dañ ko war a sellal dana ko war a sellal di toog ci barab bu sell. di toog ci barab bu sell. di sol lu sell. di sol lu sell. di ko teewlu. di ko teewlu. di ko sellal. di ko sellal. di ko jàng ngir yàlla. di ko jàng ngir yàlla. nu ko defee noonu. buñ ko defee noona lim yu bëri yi ngay dégg. lim yu bëri yi ngay dégg. di ko dégg ci jëmm joo xam ne. di ko dégg ci jëmm joo xam ne. boo ko xoolee. boo ko xoolee. du am dara jeexit ci moom. du am dara jeexit ci moom. kon na mu koy jëfee. kon na mu ko jëfee. war na koo seetaan war na koo seetaan. maa ngi dénk bu baax. nee na kon. Cheikh Abdoul Hakim nee na mi ngi dénk bu baax. Serigne Touba. Serigne Touba. daf ñoo digal jaamu yàlla. def noo digal jaamu yàlla. ak liggéey ak liggéey. am na ñoo xam ne topp nañ loola nag. am na ñoo xam ne topp nañ loola nag. ba faf sax. ba faf sax. jëmatuñ dara. jéematuñ dara. te liggéey moom. te liggéey moom. kenn mënu koo gannaawal ci yoonu murit. kenn mënu koo gannaawal ci yoonu murit. ndax jumaa ji ñu jàkkaarloo. ndax jumaa jii ñu jàkkaarloo jamono bi ñu ko fi def. jamono bi ñu ko fi def. buñ liggéeyul woon buñ liggéeyul woon. duñ ko fi def ko fi def ja ca Touba noonu ja ca Touba noonu ak yeneen ak yeneen ndax kon ndax kon danoo bëgg a toog rek danoo bëgg a toog rek andi fi andi fi doxin woo xam ne doxin woo xam ne dëpp wuloo nag dëppulu nag li ñu sëriñ bi tëraloo li ñu sëriñ bi tëraloo ngir bëgg a wéy suñuy xalaat ngir bëgg a wéy suñuy xalaat rek loolu nanu ko moy loolee nanu ko moy li ñu ci mën a dimbale nag li ñu ci mën a dimbale nag mooy ak xam moo di xam kon maa ngi soññ bu baax nee na kon mi ngi soññ bu baax ndaw ñi ndaw ñi ñu góorgóorlu ci xam ñu góorgóorlu ci xam mooy lamp bi nga xam ne mooy lamp bi nga xam moo la mën a niital yoon wi jëm ci Serigne Touba yoon wi jëm ci Serigne Touba moo la mën a dimbale moo la mën a dimbale ba liy nuru dara ba liy nuru dara tadu dara tadu dara nga mën càmm nga mën càmm kon maa ngi soññ sama bopp kon ne mi ngi soññ ndaw ñi nañ ci def yitte nañ ci def yitte jàng jafeetul jàng jafeetul xam sa diine xam sa diine ak càggante rek ak càggante rek mooy tax nga ñàkk ko xam mooy tax nga ñàkk waaye bunt yi ñu ko war a xamee waaye bunt yi ñu ko war a xamee bari lool bari lool yu bees yi génn yu bees yi génn moo gën a jafe fuuf moo gën a jafe fuuf xam suñ diine xam suñ diine te lu ci génn rek te lu ci génn rek danañ ko xam danañ ko xam kon buñ defee yitte kon buñ defee yitte ba xam ba xam li war ci li ci ñun li war ci ñun danañ ko xam danañ ko xam te Serigne Touba moom te Serigne Touba moom li lim ñu andil lim ñu andil bind ko bind ko yar ci mag ñi yar ci mag ñi yar ci njabootam yar ci njabootam lu leer nañ lu leer nañ waaye nag faw faw nga amu xam nga amu xam amu ràññee amu ràññee man caa jaar man caa jaar kon maa ngi soñ ñëpp kenn ne kon Cheikh Abdou Lakim ne mi ngi soñ ñëpp li may tëj samay kàddu rek nee na li muy tëj ay kàddoom mooy ni ko sëriñ Modou Mahfous waxe mooy ni ko ni ko Cheikh Mamadou Moustapha Mahfous waxe mooy waxi sëriñ Muntaxa mooy waxi sëriñ Mouhamadou Muntaxa nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla nañu góorgóorlu ci jaamu yàlla liggéeyal ko sëriñ Touba liggéeyal ko sëriñ Touba mënuñoo defal sëriñ Touba mënuñoo defal sëriñ Touba lu mu gën a bëgg ci ñu jaamu lu mu gën a bëgg lu ñu jaamu yàlla mënuñoo defal Serigne mën eh? mënuñoo defal Serigne Touba lu gën a bëgg ñu yar suñuy jëm lu gën a bëgg ñu yar suñuy jëm Amadou Mahfous wax na ko léegi Cheikh Amadou Mahfous wax na ko léegi. mel melokaan woo xam ne mel melokaan woo xam ne. ku ne la na jàkk ku la ne jàkk. wax la muy wax yoonu murit wax la muy wax yoonu murit. kon yaa ngi tooñ sëriñ kon yaa ngi tooñ sëriñ Tuubaa. kon nan góorgóorluwaat bu baax kon nan góorgóorluwaat bu baax a baax. nii ñu def nii ñu def. dox dox bu yaatu bi dox dox bu yaatu bi. jàng alquran al alquran. def ay bernde def ay bernde. ngir waajale ko bis ngir waajale ko bés. nanu xóotal waajtaay nanu xóotal waajtaay mooy mooy fexe defar suñuy jikko fexe defar suñuy jikko kenn ku ne ci ñun kenn ku ne ci ñun boo wéetee boo wéetee xam nga loo xam ne xam nga loo xam ne ci sa bopp ci sa bopp boo gisoon sëriñ bi boo gisoon sëriñ Tuubaa doo bëgg mu xam ko ci doo bëgg mu xam ko ci yow loolu loola kon loola kenn ku ne ci ñun kenn ku ne ci ñun na ko fexe xeet ci boppam na ko fexe xeet ci boppam te buñ ko xeetee rek te buñ ko xeetee danañu ko mën danañu ko mën ndax Serigne Touba dimbali na ndax Serigne Touba dimbali na ndax noon bu mag bi nu nekkal ndax noon bu mag bi nu nekkal Serigne Touba not na ko ko te boole nañu ak ay jumtukaay te boole na ko boole na ak jumtuwaay yuñ ko a noté ko mën a noté kon kon des kon la des yitte rek la yitte rek la kon nañ ci góorgóorlu kon nañ mag ñakat mag ñakat pëstëf pëstëf ak yitte ak yitte dog mu lan nu rawe dog mu lan nu rawe sëriñ bi moom waaye sëriñ bi moom léppam mi ngi fi kon nañ defaraat yitte kon nañ defaraat sëriñ bi dëgmal sëriñ bi li bëgg adduna li bëgg adduna bëgg ko alaxira bëgg ko alaxira lépp mi ngi ci moom lépp mi ngi ci suñu li ñuy ragal adduna li ragal adduna ak li ragal alaxira ak la ñuy ragal moom buñ toogee fi ci gis dara duñ ci gis dara kon nag jërë sëñ Malick jërëjëf sëñ Moussa le maire Malick Fall jërëjëf sëñ Makhtar jërëjëf sëñ Makhtar Diop tafsir jërëjëf kaddu yi rafet na lool kaddu yi rafet na lool sama jotaay fii daana ci bëgg lool nee na jotaayam fii daanaa ci bëgg lool fii daanaa ci bëgg lool waaye tey la raw waaye tey nag la raw ndax bi ko àndee ak samay bokk ndax bi mu ko àndee ki bokkam Moussa le maire mii Moussa le ak li histoire wane tey ak li histoire wane ci tey kon nag alhamdulilah rabbil kon nag alhamdulilahi rabbil ci daje ngërëmal sëriñ yàlla nañ ci daje ngërëmal sëriñ Tuubaa mboolem li yitte yi mboolem li yitte yi ak jum mën a doon ak jum mën a doon ñoo ngi ñaan ci barke weer wi nu dugg ñoo ngi ñaan ci barke barke barab bi ak barke barab bii yàlla faj lépp yàlla faj lépp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu gën a gën a warmaalaat nag barab bi barab bi suturaal ko ci waxin ci waxin ak colin ak colin ak jëfin ak jëfin wasalaamaaleykum wasalaamaaleykum wa rahmatullah nan nangu ñaan nan nangu amin amin amin amin amin amin nan diwoo